Monsieur le ministre des collectivités territoriales et chers grands frères, c'est un plaisir aujourd'hui de vous recevoir à l'Assemblée nationale et euh, di ci am mbégte bu baax a baax parce que vous avez au moins contribué à notre formation politique et à notre ascension en politique. Alors, donc je vais commencer par une considération subsidiaire. Moi, Baragay, je ne pourrai jamais vous accepter un échec à la tête de ce ministère. parce que vous n'êtes pas en terrain inconnu. Vous avez été le plus jeune député de l'Afrique, le plus jeune ministre euh, de l'Afrique. Aujourd'hui, si vous revenez dans un gouvernement en charge de gérer les collectivités territoriales, nous ne pouvons que espérer quand même que nous des résultats habituels. Monsieur le ministre, je vais commencer par Kermassar. Alors, certains collègues l'ont dit, euh, j'estime qu'il y a des incohérences qu'il faudra très rapidement corrigé. Le département de Kermassar, qui bénéficie d'un conseil départemental avec un budget de 300 millions, là où nous avons laissé la ville de Pékin avec 7 milliards, et aujourd'hui nous sommes devant la ville de Pékin avec plus de, euh, avec plus de euh, 750 000 habitants, j'estime qu'il faudra corriger, parce que nous n'avons rien d'un conseil départemental. Parce que dans la définition d'une ville, il y a quelque chose de très important. Il faut que les communes qui constituent cette ville, entre ces communes, qu'il n'y ait pas de no man's land. Et je pense que euh, de Yumbol Sud à Djahaï, il n'y a pas de ligne de séparation. Donc j'estime qu'on doit corriger en faisant de Kermassar une ville pour lui permettre au moins de supporter le développement. Toujours par rapport euh, aux corrections des découpages territoriaux, <coughs> territoriaux alors Djahaï, avec Daaru Cubb bi nga xamante ni jël nañ ko ci moom yóbbu ko Bambilor Yëmbal Sud qui fait 3 kilomètres carrés alors que Yëmbal Nord fait 12 euh, kilomètres carrés marché bu bees qui appartient à Jidda Caaray Kaw te ñëpp xam nañ ko mais ñu découpé ko yóbbu ko fi nga xamante ni mooy Waxinaan Nimzaat donc jàpp naa ne loolu yëpp le président de la République avait demandé à l'ANAT de travailler ci loolu pour que ñu corriger loolu bu baax baax loolu jàpp naa ni war nañu ko def alors par rapport au des fonds affectés aux collectivités territoriales dans un les sollicitations des populations ce font sans distinction de compétence parce que nit ñi gisuñu leen yéen ngi ci kaw maire yi la ñuy jàpp ni ñooy seen président ba tax na lépp loo xamante ni wàllu sécurité wàllu éducation wàllu assainissement wàllu route loolu yëpp muy voirie ci maire yi lañ koy donc jàpp naa ni war nañu renforcer li nga xamante ni mooy les compétences des collectivités territoriales renforcer aussi seeni i alors quand j'entends certains collègues dire que oui le président Macky a augmenté cinq milliards dix milliards ci fonds wala fonds de yi moi j'estime que monsieur le ministre loolu c'est pas trop ambitieux li ci gën a ambitieux mooy les 3,5 pour cent de TVA réservés à pour alimenter li nga xamante ni mooy les FDD nañ ko yóbbu 10 pour cent ça a été mentionné dans le dans le rapport nañ ko yóbbu 10 pour cent ne serait-ce que pour respecter li nga xamante ni mooy objectif yi ngeen am ci ci ci acte 3 de la décentralisation quant à la fonction publique locale et des salaires euh, augmentés moi je fais partie des maires qui avaient refusé d'augmenter les salaires Parce que dans le Code général des collectivités territoriales, il est dit que tout transfert de compétences à une collectivité territoriale doit être accompagné du transfert concomitant par l'État de ressources et des moyens nécessaires à l'exercice de cette compétence. Alors le président de la République ne peut pas se réveiller pour dire que j'ai augmenté les salaires euh, des agents alors que ñu ñëw ñun ñu ne da ngeen ñuy augmenter bi nga xamante ni mooy compétence bu bees boobu ñëw yokkal ñu li nga xamante ni moom la ñu mën a def pour supporter quant à maintenant blocage yi nga xamante ni yenn maires yi am na Yeumbeul Sud fait partie des rares collectivités locales yi nga xamante ni bloqué wuñu leen parce que le maire doit savoir lan la yore le maire est l'officier principal d'état civil moi je ne peux pas accepter xale yi war a dem yi ñu ne gars yi dañoo grève parce que tout simplement yokk lu ñu leen seeni salaire ba moi je suis l'officier principal d'état civil maa jël sumay responsabilité di signer suma bopp ak xale yi nga xamante ni recruter nañ leen ñi ci nekkul ay agent ñu nekk ci biir état civil bi donc il y a pas eu de blocage le maire doit prendre ses responsabilités monsieur le ministre vous devez aussi faire un plaidoyer parce que département bi ñu la dénk yow yaa njaboote a beaucoup de maires qui sont en Et j'estime que le maire qui est aujourd'hui élu exactement comme le président de la République l'a été, c'est-à-dire au suffrage universel direct, sa place n'est pas en prison. Au moment où je te parle, Mohamed Bilal Diatta, maire de Kermassar Sud, est en prison. Khadija Mayekor Diouf, mënul ñëwaat Sénégal parce que tout simplement jàpp na ni bu ñëwee ñu jàpp ko. Jamil Sané Parcelles Assainies est en prison. El Hadj Mamadou Ndiaye bu Thiaroye sur mer, il est en prison. Alpha Bokar Khouma n'est pas sorti de l'auberge. Ousmane Sonko maire de Ziguinchor j'estime que lii nga xamante ni moom lañ institué en termes de bracelet électronique maire yi mérité nañ ñu takkal leen ay bracelet électronique bàyyi leen ñu dem gérer li nga xamante ni mooy seen développement je vous souhaite bon vent vous êtes un grand frère vous avez beaucoup fait pour nous en tout cas bon vent je vous remercie